الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمدا وعلى آله وأصحابه ومن اتبع آثارهم إلى يوم الدين أما بعد mbokki jullit yi noo ngi leen di dénk di dénk sunu bopp ragal yàlla borom bi tabaraka wa taala mi nga xam ne moo bind santaane ñu jaamu ko santaane ñu daw moy ko bu loolu jàllee ñu xam ne xew-xew yi nga xam ne mooy xew doon yu nit ñi mën a toog di ko nettali di ko waxtaane léeg-léeg ay mbir am ci yoo xam ne ay waarukaay lay doon bu ci jullit bi xoolaatee mën na ko waar lool ci digganteem ak boroomam kon xew-xew yu mel noonu waruñu koy romb rek di jàll te duñ ko waxtaane benn xew-xew a ngi boo xam ne ci senn soxna jenn jigéen yoo xam ne borom bi tabaraka wa taala ko xéewale lislaam mu nettali fi mbir ma jaar ba mu dugg ci lislaam lan la kon nañ déglu nettali boobu ni mu ko nettalee moom ndaw si nee na ab sage la woon nee na daf doon liggéey ci benn hôpital ca Amérique loo xam ne mat na juróom-ñetti at mu nekk foofa di liggéey mu ne ci at mi weesu am na jigéen joo xam ne ab jullit la ñu indi ko ca hôpital ba mu war faa am doom nee na ma gis ko muy metit lu lool waaye nag nee na gisuma wax dëgg yàlla muy jooy gisuma benn rangoñ génn ci moom waaye xam naa ne mat wi metti na ci moom lool waaye jooyu nee na bi ma toogee ba sama waxtu wàcc jot ma ne ko man maa ngi wàcc dem am na doktoor bu war a ñëw ci kanam tuuti docteur bu góor ne bi ma ko waxee loolu nag mu tàmbali di jooy jooy yu metti di wax ne déedéet man bëgguma góor laal ma nee na ma ma waaru mu jaaxal ma lool ma geesu jëkkëram ne ko kii li muy wax lu mu doon nee na mu ne waaw moom bëggul góor gis dara ci aw yaramam ndax ba mu juddoo ba tey kenn musta gis ci aw yaramam dara dul baayam wala ay frère walla ñoo xam ne bàyyi lañ ci moom mbokkam yi ko gën a jege ñooñu ñoo mas a gis dara ci aw yaramam ndaw si ne ma ree ma ne loolu day man de jàpp ma ne sama yaram am na genn góor guy dox ci Amérique tey te am dara lu ko ci ump wala yaasu billah docteur bay wax nee na waaye ma ne ah comme que nii la mbir mi demee te mi ngi jooy sama wàcc jot na waaye naa far toog nee na ma ne leen toog naa kon damay xaar ba mu am doom nee na mu daal di ne cell moo jëkkër ji ñu daal di may sant ñaanal ma ne ma xaar lu mat ñaari waxtu soxna si am gone ci bisu ñaareel bi nee na ma ñëw di ko seetsi bi ma ñëwee jox ko samay conseil samay laaye biir ne ko nanga wattu lii dal jigéen ñu bari fii mooy jamono yuñ wasinee nekk ci seen jamono yu meret di génn te jeexagul dañuy sàggan ba am feebar yu leen di dal yoo xam ne day takkook ñoom diirub seenu dund te feebar yooyu li leen koy indil mooy càggante ndax seeni boroom kër dañuy ñëw di séy ñoom te fekk ñu ngi nekk ci meret mi jéexagul nee na bi ma waxee loolu jëkkër ji ne ma ah loolu nun duñ ko def ndax lislaam da koy tere lislaam dafa jàngale ne jigéen ji jamono yoo xam ne am na doom meretam a ngi génn jëkkëram du ko jege fenn ba keru muy génn ba set wecc nee na loolu daal doon ci man kéemaan gu rëy rëy rëy rëy ma waaw nee na tuuti fi may waxtaaneek moom pejaatar bi dugg si di xool si xale bi juddu bi mu ko xoolee nee na moom it mu jox ko ay conseil laaye ko biir ne ko xale bi e, na ngeen koy tërale wetu ndeyjoor gi ndax xolu doom aadama bu dëgëragut boo ko tëralee wetu ndeyjoor ci lay gën a mën a defe fonction yi mu war a def nee na bi ma waxee loolu jëkkër ji ne ko bi mu waxee loolu jëkkër ji ne ko ah nun mag sax buy tëdd wetu ndeyjooram lay tëdde ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la jàngale nee na nag ma gën a waaru nee na ndax nun xawma ñaata at la docteur yi am di gëstu ci xam-xam ba turwe ne ndekete nit ki tëdd wetu ndeyjooram moo ko gën a baax ci moom nee na ñii dem xam ko ci seen diine te gëstuwuñ dara ci médecine nee na ma ne jii diine faaw gën cee gëstu ba xam lu mu doon nee na ma ñaan benn conseil lu mat un mois benn weer ñi may ma ko nee na ma dem ci beneen dëkk boo xam ne benn centre islamique bu mag a nga fa foo xam ne euh, bi ma fa demee gise naa fa ay jullit yu bari yoo xam ne ñenn ñi ay arab lañ ñi ci des ay américain lañ ma tàmbali di gëstu di liir ci lislaam di laaj itam ci lépp loo xam ne lu ma jaaxal la ci diini ji bi ma demee bay sama conseil jeex ma bëgg faa jóge ñu may ma lenn ci ay liifar yu ndaw nee na ma yóbbaale yoo xam ne day xamle lislaam ndaw si nee na maa ngi sant yàlla ndax ba ma ci tegee ay weer yu néew rek laa daal di dugg ci lislaam léegi benn jullit laa comme jullit yépp kon allahu akbar loolu mooy nettali bi noonu la ko nettalee foofu la jaar ba dugg ci lislaam loolu nag nu war cee def ay taxaw seetlu ngir mën cee génne njariñ yi nekk ci nettali bi taxaw seetlu ba ca njëkk mat wu metti nga xam ne liñ miin boo demee ca tubaab ya ak ñu bare bari bu nekkee ci mat dangay dégg kàddu yi ca kaw ñuy yuux nee na mettit yu metti na lool waaye gisuma benn rangooñ loolu li ko waral mën nañ koo bañ a xam ñoom ndax muñ moo ko waral jullit bi dafa am lu nekk ci moom luñ koy jàngal loo xam ne mooy muñ muñ moomu sa xasee nekk ci xol bi metit mën naa metti day waaye yow mi fa toog mën ngaa defee ne sax kii yëgul metit bi fekk oxukaay yëg na ko waaye dafa am muñ loo xam ne bu metit tegee ci kaw nit ki mu di ko dund bu ko muñee daf cay am tuyaaba ci xadisu abi hurayra yonent bi sallallahu alayhi waalihi wa sallam nee na balaa ak musiba metit buy wàcc ci doomu aadama moo xam ci yaramam la wala ci ay doomam wala ci alalam nee na dana wàcc ci doomu aadama ji di wàcc di wàcc ba dey mujj keroo muy taseeg boroomam duutu dese benn ñaawteef fekk métit yooyu far na yépp ba mu set wecc kon jullit bi moo tax métit yooyu moo xam ci alalam la walla ci njabootam wala ci boppam loola du ko metti yenn métit yi ndax xam na ne lu koy faral bàkkaar la kon loolu mooy diine lislaam loolu mooy ngëm yàlla loolu lay tabax ci xolu doomu aadama soo xoolee ñi gëm yàlla tey dox ci kaw suuf danga gis ku feebar ku wopp wopp ju metti yoo xam ne ñàkk na lool wér gi yaram gis keneen koo xam ne jaaxle na lool ci tawat ji ko dal waxuma lu koy faj sax waaye tawat ji mooy lan mu tëkku xool gis keneen koo xam ne kàttan ga jeex na mënatul dara waaye boo xoolee gis ni ñii ma gis ak métit yiñ nekk ak tumuranke giñ nekk teewul melokaanu tudd yàlla ak melokaanu sant yàlla ak melokaanu muñ ak melokaanu kuy sàkku tuyaaba melokaan yooyu ngay gis ci ñoom loolu nag ku gëm yàlla rek moo ko mën a am moo tax boroom xam-xam bu mag bu ñuy wax wax Wahb daf ne nit ki du mën a dégg diine dégg gu wér lu dul ne dafay jàpp ne balaa muy musiba muy wàcc ci doomu aadama kooku yërmaande la day yëg ne yërmaande la day dem ba yëg sax ne xéewal yu jekki-jekki di sotti ku rek kooku daf koy war a indil day nuru musiba sax ci moom far lu tax mu ne ndax ki nekk ci metit ki nekk ci metit xéewal lay séentu fu mu toll fu ne day rafet njort di séentu ne mettit bi day dañ ki nekk ci xéewal itam nee na dafay séentu mettit kon loolu moo tax ndax kat dawaamul xaal minal mu xaal ki nekk ci jàmm <coughs> nekk ci xéewal su defee ne loola day continuer rek du nëx dara du ñëw kooka ma ngay nax boppam ki nekk ci mettit itam su ñaawee njort ba defee ne mettit woo mooy wéy kooku déggul diine moo tax foo ci nekk fu ne bàyyil xel la ca des ne mi ngi ñëw ndax dawaamul xaal min al muxaal yor wenn melokaan rekk wudul soppiku kooku munta nekk doomu adama <coughs> bindewuñ ko noonu benn bis wax bu moomu dafa génn ànd ak kenn ci ay dongoom ñu romb waajoo xam ne yàlla da ko nattu natt bu metti ndax waa ji silmaxa la ba noppi feebaru ngaana daf koo dal cir yaa ngi dagg ba noppi handicapé la amuti tànk ba noppi dafa ñàkk ba rafle amut lum sol yii ànd daj daje ci moom ñi romb ko dégg ko mu naan alhamdulillahi ala ni'amihi mu ne maa ngi sant yàlla ci xéewalam yi taalibe bi ànd ak wax bu geesu ko ne ko waaw yow gan xéewal nga dese mu tontu ko ree ne ko xoolal dëkk bu toll nii dëkk bu toll nii li ci ne ci mbooloo te mennum man mii képp maa fi xam yàlla di ko jaamu ñi fi nekk ñépp benn yéefar lay doon boo xam ne jegewut lislaam fenn walla mu doon ab jullit boo xam ne xamul dara ci diineem jox ko itam jenn itte mu ne yàlla xéewale ma ma doon ab jullit gëm yàlla xam diineem di ko jaamu waaw ndax du ma sant yàlla kon oxo kay kon loolu mooy dundiinu jullit ci kaw suuf kon ndaw sa waaru na bi mu gisee soxna si ci hôpital bi mu nekk ciw mat gisu ko muy jooy ak aka saalit waaye ndeke booba am na lu nekk ca biir muy ngëm yàlla ga ca xol ba xol ba nga xam ne su baaxee lépp baax su yàqoo lépp yàqu xol boobee moo baax moo tax gisul rankoñ yi beneen taxaw seetlu bi moo di xool soxna si kaddu gi jóge ci moom mu ne bëgguma góor laal ma jëkkër ji seedeel ko ne ba muy gone ba léegi góor musta gis ci moom lu mu warta gis lu dul ku ko jege te boo xoolee loolu fan la ame kooku fan la nekk di fa dund jullit boobu doone ma nga Makka doone ma nga Madina doone ci réewum naar la nekk wala ci réewum jullit sax la nekk waaye fan la nekk Amérique béréb boo xam ne kuy xool wax dëgg yàlla danga xam ne ormay diine sori na fa lool ak euh, ormaal sa bopp ci wàllu col jafe na fa lool dund fa si diine ci anam gu mel nii jafe na lool kon taxaw seetlu bi mooy xoolal ndaw su mel noonu di dund ci société bu mel noonu wëlbatikul nag comparé ko ak jigéen ñoo xam ne jigéen ñoo xam ne ci biir réewum jullit la ñuy nekk buñ génnee di dox ci mbedd mi seen lépp di feeñ la dale ca bopp ba ba ca biir ba ba ca tànk yi lépp di feeñ ci mbedd mi comme neex nga xool boo ñëme boo ragalut yàlla xoolal loolu kooku comparé ko ak jigéen ñoo xam ne wala sax ay góor ruus nañoo taxaw fi béréb boo xam ne dañoo jàpp ne fii fu moderne la rus nañ faa feeñal ne sax far ay jullit lañ ndax ragal ne suñ nee ay jullit lañ mën nañ leen a tuumaal ne leen da ngeen a tardé xoola koy dund ca société ba nga xam ne bu dee ci wàllu àdduna ñoo féete ñépp kaw ci tabax ak rafetal ci biti ba noppi taxul mu yëg benn complexe ci boppam dund diineem ci wàllu colam boo comparé jigéen jooju ak jigéen ñoo xam ne ñu ngi ci biir société boo xam ne ay jullit ñoo fa nekk ruus a feeñal seen diine jàpp ne boo solee sam col boo muuroo sol sam col ba mu mat sëkk boo génnee ñu ne kii ku xamul dara la wala ñu jàpp ne da ngaa jàngul moo tax nga rus a sol loolu ba tax nga sol yu xat yoo xam ne baay bi la jur sax bu ko see dafay rus jigéen jooju boo ko comparé jigéen ñi nga xam ne dañoo wëlbatiku far ne jigéen daa war a soppiku góor far ndax ne góor ak jigéen nañ yem ci lépp roye ko ñan roye ko ñoo xam ne bokku leen diine bokku leen aada bokku leen cosaan na góor ak jigéen yem ci lépp lislaam ni muy àttee du wax ne kii ak kii nañ yem ci lépp waaye kii ak kii na ku nekk jël ak xam loolu mooy maandute na ku ne jël ak xam jël ak xam góor ak jigéen ba la neexee nga ne ñoo yem ci kaw kenn ku nekk am na rôle bu ñu la jox boo xam ne mooy sa liggéey kenn mënu cee ñàkk nag kenn mënu cee ñàkk waaye kenn mënu cee jëlit nag sa rôle moroom suñ ko defee rek jafe-jafe am wala mu société yàqu mi ngi mel ne yaari dàll yu nit sol dàll ndeyjoor bi ci tànku ndeyjoor bi dàllu càmmoñ bi ci tànku càmmoñ bi rek dox ci naaj wi mën a am nga dox dem waaye booy dox ba mu yàgg nga ne ah maandu tegikat mooy dama war léeg-léeg tànk bi bu solee dàll bi ba mu yàgg ma soppi ko jël dàllu càmmoñ bi tànku ndeyjoor bi sol ko dàllu ndeyjoor bi tànku càmmoñ bi sol ko boo ko defee boo génnee ci mbedd mi ku la njëkk yam ci yow day wax kii daa dof garam bu bam sol ba noppi jaawale ay dàllam ah dàllu càmmoñ bi mu def ko ci tànku ndeyjoor bi dàllu ndeyjoor bi mu def ko ci tànku càmmoñ bi kii wérut koo dajal loolu la lay wax société bu dem ba mu yàgg ñu wëlbatiku la jigéen ña doon def ñu yëkkati ko teg fële yox ko góor ña fab jigéen ña yóbbu ci palaasu góor ña ñooña jaawale nañ seeni dàll ña jaawale nañ seeni dàll jaawale say dàll nag ku ko def sab dox dana ñaaw ña xam te yor xel yu mucc danañ xam ne société bii wératut wér gi yaramam doxatul beneen taxaw seetlu mooy bu ñetteel bi mooy kéemaana ngoogu feeñati ci rafetaay ak taar bi nga xam ne diine lislaam yor na ko xoolal ay góor ay góor yoo xam ne seen soxna day nekk ci reegal walla mu nekk ci meret yor doom ñuy séy ak moom ci biir jamono jooju période boobu lu tax mooy gis ñu lenn lu leen koy tere te xam gi ñu xam ne lii baaxul ci santé sax loolu doyul pour jàjji leen pour jàjj leen mën a freiner bànneex bi ñuy yëg ci seen bakkan xam gi rek doyut loolu moo leen ko teg loolu nag wuute na ak ab jullit bi nga xam ne dafa gëm yàlla yor lu koy contrôler lu nekk ci biir loo xam ne loolaa ko jàngal ne ko séeg jabar ci jamonoy reegal wala ci jamonoy wasin ci bakkaar yu mag yi la bokk ci bakkaar yu mag yi la bokk kon xam googu moo koy jàjji moo koy jàjji ba tax du def loolu kon foofu li nga fiy jële mooy xam ne lii baaxul rek taxul nit ki bàyyi ko waaye su xamee ne baaxul ba noppi ngëm yàlla nekk ci biir bu koy contrôler loolu mooy tax mu bàyyi lu bon jullit ba diine lislaamam janga xam ne ka ko wàcce mooy ki bind ñépp boroom boobu moo xam la baax ci nit ak la baaxul ci nit kon bu xaraamalee ne diggante bii bu fi kenn ànd ak sa jabar ndekete topp ndigalul yàlla am ca tuyaaba moo ca war waaye am na beneen njariñ bu nekk ca biir muy lor ya nekk ci biir yépp da nga ciy kon foofa la waaru waaru teg docteur bu jigéen boobu foofu la dikkee taxaw seetlu beneen bi moo di xoolal li soxna si wax foofu ñaata étude lañ def ñaata recherche lañ def gëstu ci wàllu xam-xam dugg génn dem ci laboratoire yi ba xam ne nit ki tëdde wetul ndeyjoor moo gën ci moom ñu jàppe ko xam-xam bu mag jox ko boroom xam-xam ya ku juddu ñu jaar fi yow teel koo yëgal sa yaay ndax mu di la tërale wetu ndeyjoor <coughs> fekk jullit bi moom doomam ju ndaw ji ba mu nekkee ca ca jardin ba di door a dal jàng matagul a dem sax école foofa lañ ko jàngale woon ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee nag kuy tëdd na nga tëdd si wetu ndeyjoor xadisa ngi boo xam ne <coughs> albara ibnu azib radiallahu taala anhu moo ko solo buxaari ak muslim génne ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ku ñëw ci yéen di tëdd si ku ñëw ci yéen di tër si na jàpp njàpp mu mel ne njàppum kuy julli ji soo agsee bay tëdd na nga tëdde sa wetu ndeyjoor wax la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale lu jiitu docteur yi di def seeni i analyse ak seen gëstu kon loolu ba tey ci li waar docteur boobu ci la bokk nga <coughs> xoolaat bi mu jaaree ci yooyu mu jaar yépp lu mu ci teg mooy ma ne faaw ma gëstu diine ji kon kon ndekete diine lislaam loolu la baaxoo <coughs> moo di nit ki jëfandikoo xolam jëfandikoo xelam ak bindam ba ko yàlla bindoon te yàquwut ndekete yooyu buñ àndandoo rekk day gindi ko dem ci diine lislaam ak maqaama bu mu mën a nekk day gindi ku dellu ci lislaam loolu nag dafay fàttali jullit yi seen responsabilité seen responsabilité ndax jullit yi suñ <coughs> suñ dundul seen diine su fekkee dundatuñ seen diine di dund diine joo xam ne photocopie la boo xam ne dëppoowul ak original ba di won nit ñi leneen ne leen lii mooy lislaam te du loola moo xam ca pas-pas yàlla moo xam ca jaamu yàlla yàlla moo xam ca jikko ya la waaye fexe nañ ba dund diine ju bokkul ak jooja wone ay jikko yu ñaaw te doon ay jullit noonu ba taxaw fële di leen gis te xamut lislaam dafay jàpp ne lii mooy lislaam la mu koy jural mooy daw diine ji waaye su fekkee nit ki daf koo dund wone ko mu mel na mu mel dëgg-dëgg li muy jur mooy képp ku ko gis bëgg ko te boo ko bëggee dugg ci <coughs> juróom-benneel bi te mooy bu mujj bi mooy xoola soxna soosu nga xam ne ci muuraayam képp aku jafandoom ci diineem ci yoo xam ne booy xool danga naan lu simple la sol am colom lànk góor ñu góor góori jàmbur yi bañ koo gis ak ci <coughs> xamle ne lislaam tere na nit ki séeg soxnaam ci jamono yi reegal ak ci jàngale ne xale bi dañ koy tëral ci loxo ndeyjooram jooram ak doomu aadama sax yu simple yooyu rek moom la soxna si wone yàlla gindi ci nit gindi ci nit ba mu génn ci kéefër dugg ci lislaam amul benn sikki sàkkane am na boromi xam-xam yu xam lu bare bare bari ci lislaam lu bari waaye tawfiix jooji ndaw soosu am amuñu ko lu ko waral mooy ñàkk a dund seen diine lu dox seen diggante ak seen diine benn rus kersa ëpp goo xam ne kersa gàcce la ba rus a dund sa diine ci kanam mbooloo mi wala sax ragal calcul yu ëpp yoo xam ne amaana su ma defee nii ñi ne ma lii amaana su ma defee nii la ciy tegu mooy nangam yu mel noonu ba tax nga teg sa diine kupp fële fas yéenee nuroog nit ñi ci des ñëpp ci lépp soxna si melokaan woowu ko yàlla jox nga xam ne mooy ak dëggu ci biir ak ci bitti borom bi tabaraka wa taala gindi na ci nit mu génn ci kéefër dugg ci lislaam te duñ fàtte ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngaloon ali ibn abi taalib ne ko yàlla gindi ci sa loxo benn jëmm benn jëmm boo xam ne nekkul woon ci lislaam dugg si ci lislaam wala nekkul woon ci njub dugg si ci njub yàlla gindi ci sa loxo kenn kooku moo gën ci yow ñuy jox la àdduna ak li ci biiram kon loolu xéewal gu rëy la lu simple la yàlla nu borom bi tabaraka wa taala baaxe nu jéem a xam lu suñ diine suñ ko xamee nu jéem koo jëfe te suñ ko jëfee nu sellal ko borom bi tabaraka wa taala nangu ko ci nun allahuma inna nasaluka an tujanniba almuslimina afradan wa mujtamaatin min shururi alfitani wa axtaariha summa alamu anna allaha amarana bi amrin azimin ألا وهو الصلاة والسلام على النبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم بكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين وأقم الصلاة